ne konit kousi ranyekou si bo bile posou, sanpoune apou klop, si gorboun fek bar, digente dara ak linger, si digu jolof. Klop bou djidou, am wàccuwaay yi war li yépp ngir doxalin bu gën a ñoŋ ci wàllum infrastructure am bis boo xam ne bu méngoog jamono la waaye it ay colko ngir ndaw ñi li ci gën a am solo nag di pelouse bi am na staff boo xam ne ñoo koy gunge ngir ñuy tàggat ñu am qualité génn ci Jolof Olympique Club si biir joueurs yi dinañ ci am ñetti nationalité ay doomi réewum Sénégal doomi réewum Gambie ak doomi réewum Guinée ci pàcc bu njëkk bi. ajuma ji nag club bu ñaari tali dalal leen ngir ak tàggatu seen digganteeg ndaw yu Jolof Olympique Club. jongante bu am dogu am qualité waaye tamit fës ci ñaari wàll yépp muy jongante boo xam ne tax na ay talent yu bari génn ci ci wàll wu ne waaye tamit ay ndaw yu xarañ ñi si ëpp sax fukki at ak ñaar képp la am am bëgg-bëgg football tàmbale diko ko fësal si bëri bi nga xam ne dalal nañ leen si am royuwaay bu mat di ndaw ni ñoom nekk koo xam ne ràññeeku na si wàllum football waaye tamit am tàggatkat yu mag Moussa Ndiaye mi nga xam ne bokk na si mondial bu 2002 ñu ngi janoo woon ak ñaari tali boo xamante ni bii ràññeeku nañu ci wàllum football am ñu ñu ràññee ñu leen di tàggat Badara Sarr nekk ci côté yi Abdoulaye Seck moom it nekkoon défenseur bu ràññeeku ak ci Cissokho mi nga xam ne nekkoon na ci gaynde yi atum 2002 moo di tàggat ni góor yi. di ay xarañteef yuy tax sax daanaka ñuy fàtte jongante bi nga xam ne moom la ñuy waxtaanee jongante boo xam ne. ndam la ci ñaari tali la mujjé ñaari bal ci dara digënté ak Jolof Olympic Club waye li ci am solo modi ak ragneku ak taxaway bo xamné ñaari wal yépp soxla won nañu ko galactique yu ñaari tali wacc ci Ligue 2 di xaré ngir yégaat ci li nga xamné modi Ligue 1 waye it Olympique Jolof Club ñom bëgg leena fekk ci nu mu gëna gaawé am mbégte lool ci li mu teewee ak fekki ko Pape Alioune Ndiaye di weccoog ñun mbégte mi nga xam ne dund na ko waaye tamit di joxe ay kàddu yu soññee ndaw ñi ci wàllum tàggatu ak wàllum football buñ ci bëggee tekki ëllëg ñu koy déglu ak xerlu laata muy wutali nag groupe E-Media Invest visite bu ànd ak waxtaan wu yaatu. waaw projet bi nan laa ko mën a waxee genre giving back la Euh, man euh, Jolof laa soxee ko sama papa mu ngi dëkk Daara sama yaay dëkk Linguère euh, donc ma doon xalaat tey nan laa mën a delloowee retourner ascenseur bi tey fi ma fi ma fi ma bàyyee ko fi ma soxee ko mu nekk tey gox boo xam ne nit yi dañu bëgg football bu baax loolu moom ma poussé tey ma ma taxawal foofu Jolof Olympique Club yaakaar ne instant yi lu ñu gën a song mooy xeexu infrastructure yi parce que tey pour def football qualité du ma ne sax football qualité mais sport ci euh, d'une manière générale pour def sport de qualité il faut nga nga nga am ay infrastructure donc ñi ngi ñi ngi euh, ci euh, lal suñu terrain synthétique ñi ci wàllum dem dikk bi itam ñi ngi euh, wut nañ suñu bus ak ak yeneen yu nga xam ne am nañ tey benn salle de musculation de dernière génération boo xam ne def nañ ko yooyu yëpp tey pour pour euh, gën a jege tey euh, performance yu baax donc ñu ngi ñu ngi ñu ngi ci liggéey bi daal. <laughs> waaw yaakaar naa ne nag reconversion moom. jour bi ma ñëké signé sama contrat professionnel ci la ko commencé ndaxte waruloo bàyyi tey euh, xaar ba bay football di door xalaat ci loy def je pense que tay euh, jéem anticiper ci sa vie c'est jéem devancer le temps là aussi et je pense que tay nit ku nekk tay da ngay jéem planifier tu mané sax sa carrière mais sa dundu xam tay fan la jóge ak fan la jëm donc. Euh, métier wu métier métier yi nekk ci football bëri na nit ku nekk nag yaay xool tey euh, fan ngay sentir sa bopp ak tey fan nga bëgg a joxe sa passion ak sa énergie nga nga jublu foofu loolu kese waaw maa ngi maa ngi maa ngi Grèce maa ngi Grèce euh, ci Aris Salonique donc ça se passe bien Mangi ngi mangi mangi ngi maa mangi du plaisir c'est important aussi parce que mën mën nga di jouer te doo jël plaisir mais mangi ngi jël énormément de plaisir Ouais. donc euh, alhamdulillah. waaw comme nous nga ko la Coupe d'Afrique bi passé mangi ci woon joué un match Alhamdulillah, alhamdulilah dem nañu ba finale, donc xam nga tey la euh, final pour man léegi dootul ndam donc euh, parce que def nañ ko ba paré légui luñ ciy teg kay la ñuy xool luñ ciy teg moy rek jëli coupe je pense que ne tey euh, lolu moy moy lu ëpp solo et voilà man joueur là, international là, ma ngi joueur bu nek tay joué sa dëkk je pense que dara gënu ko reuy comme ndam mais ça passe par tey euh, jouer ça passe par def ay performance te ma ngi ci. We are